Anyways.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 ginnaaw bi mu sàccee xar yi daf ko yóbbu ca marché xumma bu Richard Toll doon ko fa jaay ci noonu nag bi mu gisee borom xar yi ci la fëx daw <laughs> waay waay doo rëcc de ma ne kaa bàcc li daw la def laa wax bàyyi fa ay yérem ak ñaari portable am <laughs> waay waay ku dee ci marché yaa tàgge sa bopp waaye nag mujjul rëcc de ndax gaa yi dañ ko daq ba ne ko ni tal di koy jébbal yoon ci kanamu attekaay yi ci tribunal bu Saint-Louis nag kaa bàcc li mi ñu jàpp ci loxo ci poos tubaab di ko wax flagrant délit lank ba tëdd ci naaj bi la def ne li ñu koy jiiñ defu ko ay way samba ndax nee na ñett ñi koy jiiñ sàcc yépp ay frère lañu dañ ko bëgg a toroxal taqal ko moo tax ñu koy jiiñ càcc waa ma ne bu leen gisee ca marché ba lu tax muy daw moo jara na nag ci li nag nee na ñetti frère yooyu liñ ko tuumal yépp ay nar la moom yoonam nekkul ci càcc mi moo yéen waaye attekat yi bi ñu xoolee ba xam ne li muy wax ay waxu kesew kesew la yoon mujj na ko daan ñaari atu kaso wëpp la xanaa benn xar bi mooy benn at beneen xar bi di ñaari at ndax ñaari xar la sàcc moo tax ma ne mooy li woykat ba waxoon loo moomul ba ko fa bu ko yóbbu teg ko fi waaye fi mu ne réew mi dafa mel ni feebaru sàcc la am secteur boo dem ku ñu ko dénk boo xefee mu ne tungaañ la fa ne moo tax ma ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a graaw korona la wax la xew ca Kaolack doy na waar juróom ñetti téeméer ak juróom juróom fukki kilo yamba la fa mobile bu Kaolack ak bu ñooro teg loxo mbir mi mu ngi xew diggante ajjuma ak dimanche brigade mobile bu Kaolack teg loxo fukki koli yamba <laughs> waay waay yamba ji bari na de tegee ko loxo ca localité yi localité bu naan jagle ak lat menge lu toll ci ñeenti téeméeri kilo yamba xeet mu xeet boo ko doon xayma ci xaalis mu toll ci fanweeri million ak ñaar <laughs> waay waay xam nga ne lii ku tuuti du ko dugal ci réew mi naka noonu ca àllarba ja ci la brigade bu ñooro duggee ci pecc mi ñoomi teg loxo juróom-ñeenti koli yamba pëtalaw toll ci ñeenti téeméeri kilo ak juróom fukki kilo yamba <laughs> mu xeet njëg li boo ko doon xayma ci xaalis mu toll ci fanweeri million ak juróom benn kay mooy li may wax rek réew mi li ñu fiy jàpp ci yamba bari na kayil fi dugg ci yamba kenn xamul lu toll te loolu terewul yamba gi di jalla ñoo ci réew mi foo tourné gis gonek mag di ko muqi mu leen di tàggaleeg seen sago ak di leen defloo ay jëya moo tax ma ne jàngoro gi dal réew mi moo gën a graw korona la wax la xew ca Kër Masaar doy na waar ay agresseur fa nekkoon doon lëmbe dëkk bi waaye nag gànguk agresseur boo fa nekkoon doon fa lëmbe way takk der yi mujj nañ leen teg loxo waaw góore waay ma ne agresseurs yi fa la ñu nekkoon di agressé ak a sàcc ak a terroriser nit ñi naka noonu gendarmerie bu Kër Massar ci ab perquisition bi mu doon def ca gox boobu ca la loxo fekk leen ci benn bërëb fekkaale fa ay paaka ak i jaasi ak ay matériels yu ñuy daggee ay bunt fekkaale fa tamit yamba ju takku encore yamba ma ne mooy li may waxaat yenn yi nit munu koo def ba noppi ànd ak sagoom dogaale nit jël sa jaasi ne ko kotépp gor mbaa nga yor sa paaka dal di ko koy jam ba noppi jël li mu yor dem waay waay ko ànd ak sagoom munu koo def moo tax ma ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a graw korona la wax la xew ca Jurbel doy na war ab xale bu jigéen moo fa am doom fab xale bi yóbbu ba ca marché Ndumbe Jóob mus sànni ko fa ay waay tey mim réew ndaw si def yëf yi nag ab célibataire la at yi toll ci ñaar fukki at ak juróom-ñaar ndaw si dafa ëmb fekk amul jëkkër bi mu amee doom nag ci la jëlee xale bi dal di laqatu jël ko dal koy sànni ci marché bi ay waay ana yërmande waaye nag bi muy def yo fii dafa am ku doon romb for gis ko hmm, waaye bakkan dafa for ci noonu nag mu doon jéem a daw waaye gars yi ko ba teg ko loxo woo commissariat central bu Diourbel ñu dal di egsi ci saasi ci béréb bi gannaaw bi ñu constaté fait ci la élément commissaire Mor Ngom yi delloo ca kër ndaw sa ba ci béréb bi mu doon amee doom waaye nag alhamdulillah yàlla def na xale bi dara jotu ko indaale bakkan wér peleg dib xale bu góor ay bakkan yàlla ko yor de li gën a ti doy waar nag mooy ndaw si bi ko gendarmerie de interrogé daf ba léegi xamul kan moo ko ëmbal ay noonu lañ ko jëlee yóbbu ko ci ab structure sanitaire ngir sàmm wér gi yaramam di ko fay mujjee jëlee yóbbu ko defeere ko ci wàllum sànni doom waaye gis ngeen réew mi du ne fii xew waaye nag ak lu mën a xew ci réew mi fan yi réew mi yëngu na coowal Adji saar Sonko kompolo du kompolo ah réew mi mu ci guddi yu bët setagul de waaye ak lu ci mënti am jàmm dal rek dal rek mu doonoon seen xibaaru buzz dig daje samedi ci yeneen xibaaru buzz